asalaamaaleykum la famille maa ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaaraat yéen ñëpp maa ngi ñëwaat encore une fois di wax ci euh, situation bi mais balaa may wax dara damay témoigner waat sama respect ak sama estime bu ma am ci président Ousmane Sonko mérite nga sama respect mérité nga sama estime parce que bu dee ci wàllu patriotisme wàccoo nga ak ñun bu dee ci wàllu njub wàccoo nga ak ñun liggéey nga 15 ans. non seulement jëloo suñuy koppar mais jël nga ay risque tey la sa vie ak sa famille pour dénoncer càcc gi ñu doon càcc ak njum la nga fa amoon ba tax na ñu dàq la jiiñ la topp la fitnaan la bu baax léegi kon bu donte budul lool rek am nga sama respect ak sama estime à vie d'autant plus que fépp foo mu a jaar xam naa ay nit yu bokkoon ak yow université wax nañ ma ni yow buñ tey buñ gisee nga mel nii du leen du bett parce que loolu lañ la mës a xame témoignage yi setal nañ la témoignage yi yëkkati nañ la donte sa euh, suñu borom moo la yëkkatil boppam mais nit ñi nga xamante si nii fréquenté nañ la wax nañ ci ñun loo xamante wax nañ ci yow loo xamante si ni dal na suñu xel bu loolu weesoo nga nekk aussi jeune nekk responsable mënoon def comme tout le monde tourner à gauche droite nga takk say soxla teel a encadrer sa vie am say njaboot di leen gérer dans la discrétion léegi nag am na nit yoo xamante si ni bañ demee xol la ci wàllu politique amuñu fun la takkal ndax ñoom nañu defu politique mooy sàcc réew mi s'enrichir ba ñu demee xool ne non kii mënut a nekk fa mu nekkoon wóor na ma am na lu mu jël ñu topp la ay ati ati ati at gisuñu dërëm boo ñu jëlal ñu ngi lay remercier ci loolu mais nag ñu ne comme que mënuñu ko taqal foofu nañ ko tëgg complot taqal ko faneen ma ciy wax gendarmerie gendarmerie nationale ay soldaa ngeen ay corps d'élite ngeen bu leen nangu ay tàppetu politicien di yàq respect bi ñu am ci yéen bu leen nangu ñu leen utiliser pour le sale boulot maa ngi koy wax armée bi maa ngi koy wax gendarmerie maa ngi koy wax la police maa ngi koy wax aussi juge yi bu leen nangu ñaari juge corrompu bu leen nangu doon yéen da ngeen jàng ba nekk place ngeen place Macky Sall yóbbuwu leen fa. Sénégal ngeen di liggéeyal liggéeyewu leen benn nit nit yooyu noonu bu ñu defee seen ay tooxi doona buñ leen ci buñ leen ci dugal. parce que le peuple sénégalais yëpp ñu ngi leen xool bañ leen loolu vous êtes respectable da ngeen di jàng am seen i am ay post yu kawe ngeen mérité salaire bi ñu leen di jox mérité respect bi ñu leen di jox. bu leen nangu benn nit ak son clan ñu utiliser seen corps de métier salteel ko te xam ngeen que ni instant bi nii loolu lañ bëgg ñaari juge benn juge xoma Samba Sall wala benn juge xoma nan moom Mamadou Seck bu leen nangu ñu taqal seen métier bu leen nangu ñu ñu dëddale leen wala ñu xuloole leen ak Sénégal politiciens yi ils sont de d'installer benn climat bu doy waar si réew mi te dëgg lañ leen cee taqal bëgg nañ leen leen jël yéen def leen bouclier ngeen nekk ci kanam ñu naan juge bee décidé wala gendarmerie bee def wala police bee def alors que ñoom ñoo nekk ci ginnaaw pour utiliser leen soyez avec la vérité mais surtout soyez avec le peuple bu leen kenn def defloo naka sadul noonu nit ñi nga xamante si dañoo bëgg a taal suñu réew nit ñi nga xam ne amuñu honneur amuñu dignité ce sont des voyous laqatu derrière des costumes derrière des postes di saaga suñuy institution di saaga suñu drapeau ñu ngi leen di wax que ni ne marchez pas dans leur combine parce que ci ay fan la ñu nekk yéen naafeq yi. ñu ngi leen di gis euh, gis naa ci ay député ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi naan ñun suñu suñu collègue yéene wuñ ko dara lu bon da ngeen ni kàcc ay dëmm ngeen su ngeen sañoon kasu lay fanaan yi xam ngeen bu baax li xew wax na leen ngeen gis procès verbal mun ta weesu mbir am ñëwoo woo yi témoins yi ñëw wax wax ju leer ne midi ñu xool bu ñu jógee ci témoins yi ñu dem xool rapport médi médical rapport médical ñëw wax lu leer ne midi waxatuñ leen dara ñu dem xuus tuuti ñu dégg ci avocat boo xam si nii nee nañ jabaru ministre de l'intérieur la ñu dégg ci ay membre APR ña ko doon jël si démb ñu dégg benn mbaamu xuux mu toog ci télé bi ne un mois derrière mbir mbir xewoon na taxal ci gendarmerie bi mu leer la kon un mois derrière kon ñoom ña nga doon waxante seen biir ak ña nga doon waajalante te ñu ngi xaar waa gendarmerie ci loolu noonu mu leer ne bépp sénégalais bu yew mu xam ne lii complot la bépp sénégalais bu yew xam ne lii complot la ndëgg sërxal la dañoo bëgg a daaneel seen moroomu opposant nit ku jub nit ku wane wane wale wane patriotisme jëlul suñu dërëm ni muy defe politique noonu lañ bëggoon bépp politicien mu mel léegi nag ñoom dañu ne du ñu am adversaire te waa ji nii yàlla may na ko doole nit ñi bëgg nañ ko danañ def la tout pour damm ay tànkam fi ñu ko bëgg a jaarale ci ay fen la ay kàcc ak ay njuuj njaaj les vrais coupables dans cette histoire mooy les personnes yu nekk derrière Adji Sarr te xam ngeen ko xam ngeen ko Sénégal xam nañ ko suñu kilifa diine yi du ñu leen woo ci lii lu ñu leen ñaan mooy ngeen continuer ñoo ñaanal di ñu defal ay dog di ñu digal ay dog bëgguñu warma bi dox suñu diggante ak mu am ay tâche tax na ba du ñu ñëw di ñaan si njekk wala di leen di li ñu bëgg mooy ngeen toog ci war ma boobu ngeen nekk rek nit ñu kon ne di leen di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay lii c'est une question de génération et de responsabilité du ñu daw di woowi làqu fenn du ñu daw di woowi kenn bu fi kenn nekk naan suñu sëriñ si ñu wax suñu sëriñ si nañ leen bàyyi ñu jaamu yàlla ak di ñu digal ay dog ak di ñu ñaanal ñu bàyyi war ma boobu mu reste intact ça c'est une question de génération c'est une question de responsabilité mooy nga nangoo nekk jaam wala nga nangoo nekk góor yàlla taxawal sa drapeau loolu kase mooy li fi am ces gens là ce sont des voyous yéen naafeq yu bon yi naan comme que li am na na dem wuyu justice ban justice les hors la loi mooy les députés yu dem fekk loo xamante si ni ay vices moo ci nekk waruñu ko valider mais comme seen maître bëgg na ko ñu dem valider ko donc ñooñu ce sont des hors la loi bu leen ñu wax waxi justice ci justice boo xamante si ni wane na fukki junni yoon par parloo wane na fukki junni yoon bu ngeen bëggee dagg bopp kenn su ngeen ko indee ma daggal leen ko bu leen ñu wax waxu justice soyez franc soyez honnête avec vous-même ragal leen yàlla yéen naafeq yi nag président Macky Sall askan bi yépp xam nañ que ni président Ousmane Sonko deful dara su amee ñaar ci askan bi ñu la faral Mame Gor Diazaka la ak Birima mais sénégalais yépp xam nañ que ni da ngeen di waajal pour dagg bopp Ousmane Sonko te Sénégal nanguwul loolu moo ñu woote résistance résistance bi droit la képp kuy sénégalais. foo mënta nekk si àdduna bi nga taxaw résister à l'oppression c'est un droit donc dinañu résister dinañu résister te résistance boobu bu laajee suñuy bakkan dinañ ko jox suñu bakkan yaa ngi créer nag beneen beneen beneen affaire bu gën a garaaw yaa ngi koy créer instant bi nii parce que ñu bëri ñoo ngi daas fanaanal toog di xaar instabilité bi ngeen bëgg a bi ngeen bëgg a plonger réew mi yéen yéenay responsable de instabilité boobu noonu parce que yéen yéenay dëgg def ay ndëgg sërxal yéen yéenay tëgg ay complot yéen yéenay fenloo ay ay ay juge yéen yéenay jël ay juge def leen seen ay seen ay di leen ñu leen di defal li ngeen bëgg kon lépp bépp instabilité lépp lu xew ci réew mi vous êtes les responsables maa ngi wax ak bi yëpp résistance bi yëpp seen droit la ci li ñu leen di woo bu leen ko ragal seen droit la résistance nag lu mu laaj loo xamante si nii daf sa bakkan sax bu la ko laaj te nga xam ci sa droit nga nekk loolu yaa ngi sa droit am nga ci droit bu nu kenn xoxatal bu nu kenn manipuler début bi dañ doon faire semblant ne duñ ci wax biñ demee ba xam que ni askan bi xam na ne ay fen la ñu jël télé yëpp yónni yeewi xaj yi ak dëmm yi ne leen dem leen ngeen wax nag wax jot na parce que nit ñaa ngi waaj a yow dem leen ngeen lëndëmal seen xel moo tax ñu ngi yónnee façon bu nekk ñu dem ci télé bi nan suñ collègue jàmb lañ ko yéene ñi naan suñ bu sañoon day leer mbir yee garde à vue la leere mbir ya ca témoin ya leere mbir ya ca rapport médical ba la leere ban ca tuddee ay waa APR ay avocat ay médecin tudd ci ay ay ay ay nit yu nekk ci ginnaaw boobu la mbir ma leer ña doon woote chez Mamou di joxe lekk ak naan ay pomme di ko jox ay ay ay ay fruits di ko jox ab jigéen pour naxee ko ko ak lañ ko dikk ba ndaw soosu génn kuñ violé nga génn di maye 10 000 xam ngeen ni amul fenn ci àdduna kuy toog di laaj sama violé kër la ñëw xam ngeen ni amul fenn ci àdduna kuy dem kër goo xam ni papa yaay ay doom ña nga fa nga indi ñaari fetal di violé loolu ñépp xam nañu amul fenn ci àdduna kon képp ku taxaw naan dañoo bëgg a xam dañoo bëgg mu leer ak naafeq nga parce que xam nga ba noppi su leen sañoon nag mbër yi yéen li seen biir xool mooy di ngeen bëgg Ousmane Sonko mu sànku donc seen biir xol la ca nekk mooy génn seen làmmiñ yi moo tax nga naan non ñun dañoo bëgg rek mu leer xam la fa xew dañoo bëgg lii dañoo bëgg laa Ousmane Sonko c'est un c'est une personne digne c'est une personne respectable bu bëggoon a taxawaal wala muy mel naneen day mel comme ñeneen xale bu ndaw la teewul dafa jël ay responsabilités am takk ay soxnaam toog këram gérer fiyam liggéeyal Sénégal ci nam ko war a defee ba yàlla fay ko li mu ko fayee nit ñi bëgg ko def ko seen xol loolu bu leen méttee tamit mënu leen ci dara seen naafeq gi ngeen di def mooy ngeen di faire semblant de faire confiance à la justice naafeq mënut a weesu ab Sénégalais bu taxaw naan je fais confiance à la justice donc yéen yéen nga xam si ni a nekk yéen nekk ay juge yéen ñi nga xam ni yéen a yéen a yéen a nekk ay ay avocat yéen ñi nga xamante ni yéen a liggéey ci domaine boobu bañ leen loolu setal leen seen der taxaw leen ngeen bañ seen métier bi ñuy utiliser benn sénégalais instant guddi ñu toll nii amatul euh, euh, confiance ni respect sur la justice alors que la majeure partie d'entre vous vous êtes des gens respectables vous êtes des intellectuels ay nit yu jàng ba mérité seen poste donc bu leen nangu pour ay ambition personnelle ay nit di utiliser seen corps de métier di ko salteel nit ñooñu defuñu leen li ngeen doon li ngeen doon yàllaa leen ko def seen njàmbaaru bopp donc restez chez vous prenez vos responsabilités jël leen seen ay position bu leen nangu ñaari juge wala ñetti juge yàq seen euh, seen der ci Sénégal juboo leen ak Sénégal juboo leen ak yàlla juboo leen ak la vérité ces gens-là ce sont dañ leen a yónni ñu leen yónni ña nga ca kaw a kaw a kaw samp leen suñ suñu suñu bopp réew yi di leen jëlloo ay décision bépp nit bu mën a yee Afrique ñu ne ko fexeel ba damal ñu ay tànkam kii warut a jëm kaw ñu nekk di exécuter ay ordre ci suñu xaalis ci suñu doore ci suñu deret ci suñu naqar suñu lépp la ñuy jël di ci exécuter ay ay ay ay décision ak ay ordre yoo xam si ña muy profité nekkuñu Afrique yewu leen yewu jot na bañ leen bañ jot na résistons bu ñu laajee suñu bakkan tamit résistons ci suñu droit la ñu nekk. bu ñu kenn xooxatal woowu ñu nitu diine yi nitu diine yi ñu ngi leen di ñaanal ngeen yàgg fi ñu ngi leen di ñaanal yàlla dolli leen wilaaya dolli leen martaba ñu ngi leen di ñaanal amuñu ku dul yéen respect bi ñu am ci yéen rus nañoo ñëw ci yéen di leen taqal ci mbir yu salteen yi continuer leen di ñu ñaanal ak di ñuy jox ay dog ñu koy def pour réew mi am jàmm bu loolu weesoo lii problème mu jeune yi la la révolution doit se mener et on va la mener lii problème mu jeunes yi la ñun ñoo war a jël suñu responsabilité daw ñu làqu fenn daw ñu ñaane ndimbal fenn daw ñu yërmande wu ji fenn dañuy taxaw résister parce que suñu droit la du ñu nangu benn Sénégalais surtout ay vaurien laqatu su ginnaaw ay bureau di utiliser suñu gendarmerie di utiliser suñu police ak suñu juge di fenn di tëj ku leen neex di yàq avenir ku leen neex fat seeni i seeni seen trafiquant de billets fat Aliou Sall fat Bougazelli fat Mame Mbaye Niang fat Mamour Diallo sàcc yu mag yëpp ñu ñu fat leen ña doon woote génocide nañ jël jaas yi rey leen ñi ngi ñu fat leen ña doon saaga xeet yi ñi ngi ñu fat leen ñu ne lan ñi ngi jàpp ay Guy Marius Sagna ñi ngi jàpp ay Clédor jël charge yi gu duufal ko ba mu duuf dans le seul but de d'aggraver le cas pour mën leen a téye ci kaso bi loolu noonu nag waratuñ ko nangu te duñ ko nangu waratuñoo nangu lu mel noonu te duñ ko nangu bu ñu kenn wax waxu justice na na na juge yëpp jël seen ay responsabilité na procureur yëpp jël seen ay responsabilité ñu dénoncer justice arbitraire bii nii képp kuy sénégalais ñu ngi ay woo ci résistance bi amul dellu ginnaaw amul yox-yoxi amul mbiru tapet na ñëpp jël seen ay décision na ñëpp jël seen ay responsabilité président Ousmane Sonko respect et honneur à toi bul bul bul am dara looy ragal toute la population avec toi toute la jeunesse avec toi muy Sénégal muy diaspora bi amul dellu ginnaaw amul masla loolu mooy sama sama wax dina dellu si waat ci yeneen yeneen vidéo incha allah rabbi